wala boog Serigne Ndiaye ak compagnie Korya Sele la daan demi-finale wala boog quart de finale Obali daan général Malika quart de finale fàq na ko Busulu da koy daan Serigne Ndiaye dina ko daan wala eh Serigne Ndiaye ak compagnie la ilaha illallah arbitre Ndiaye dem na final daan na opening eh, final moo final woon dimanche loo wax looy daane gars yi alhamdulilah baal ma sant yàlla ñaari final yi teglantoo macha allah ñu ne yàlla mu jël ko xam nga Pakala sama garawa yéen ay final waaw ñoom rek Koria eh, Sambong ah ndeysaan arbitre fii ci terrain gaal bi parce que laa leen wan ginnaaw jóge Mbuur Serigne Ndiaye numéro 2 ngeen jàkkaar loolu jóge Medina bokk écurie Fass parce la Mbuur montagne mu mel ni ndeysaan ñoom ñaar ku nekk jël na final ren Serigne Ndiaye 2 millions yu passé moo ko jël fa nga xam ne mooy arène nationale. Kala 800000 yi ñu tegoon àjjuma passé moo ko jël ca terrain Adrien Senghor wala arène Adrien Senghor mbay ci la fa daanoon final Serigne Ndiaye daan général Malika final dimanche passé kon lu ni ñaari finaliste ñooy daje yàgg maar ñaar ñuy finalu. sax Pakala daw na jëli ko Pakala génne ko Pakala Pakala ren boo ko xoolee da xam ne liggéey na mais nuyu naa kulli kuy seetaan lamb ci Leewtoo TV foo mën a nekk du ma la fàtte Khady Rose Ndiaye di doomu séréer nekk ca Allemagne maa ngi koy nuyu ndeysaan bëgg lamb lool. Serigne Ndiaye maa du la daan war na ko daan na ko Serigne Ndiaye jël na final ba daan na ko